ok incha allah ñu ngi war a jël tey aya quarante cinq ci suratul an'am fa qutia dabiru alqawmi alladina zalamu alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi santaat suñu boroom jalla waala mi ñu wërsëgalaat ñu daje ci weeru mag wi di chehru ramadan ñu daje ci ab néegam daje ci ab téeréem di ko fas yéene jàng loolee nekk ngëneel ci biiri ngëneel ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal nañu boole nangul lépp boolem ñi ànd ak ñu nit di ko déglu ak a seetaan fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yal nañu yàlla subhanahu wa taala boole ak ñoom ci afiyam te fayal ñu ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlañu suñu bind bu njëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني فقطع فقطع دابر القوم الذين ظلموا noonu la ñuy daggee gannaawuk xeet ba nga xam ne dañoo tooñ daabiral xawm mooy ko mujjoon ca ñoom ca gannaaw walhamdulillahi rabbil alamin mboole mi sant day ñeel ne yàlla kiy boroom mboole mbindaafon yi qul araaytum in axaza allahu sam'akum nee leen mu ndax gisu leen su dee yàlla daa jël seen dégg gi wa absaarakum moo gis jëlit la nga xam ne mooy seen bët yi ngeen di gisee wa xatama ala qulubikum daa di kaste seen biir xol yi man ilahun gayrullah ana ban yàlla gannaaw yàlla ya'tiikum bi moo leen di dikkalaat ci loolu unzur kayfa nusarrifu al ayat ne neel xoo xoolal yow yonent bi naka la ñuy teqalee aaya yi summa hum yasdifuun gannaaw ba ñoom ba tey ñu nekk di jéng rek yoonu njub qul araaytakum in ataakum azabullah nee leen moo ndax gisu leen su leen dikkalee li nga xam ne nii moom mooy mbëggalum yàlla baxtatan ci mbetteel aw jahratan wala mu doon lu feeñ lu ngeen di gis hal yuhlaku illa alqawmu zalimun ama ndax dana doon ñuy alku lu dul xeet boo xam ne ay tooñkat lañu wa ma nursilu almursalin ñun nekkuñu di yónni yonent yi illa mubashirina wa munzirin lu dul ñuy bégalaate ak di xuppaate fa man amana wa aslaha koo xam ne daa gëm te yéwénal fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ñu mel noonu day amuñu lu ñuy tiit ca la nekk seen kanam amuñu it loo xam ne dañ cay tiisu ci li ñuy bàyyi gannaaw walazina kazzabu bi ayatina amma ñe weddi woon suñuy aaya nag yamassuhumul azab ñoom day dana leen laal mbugal ma bima kaanu yafsuquun ci liñ nekkoon di ko génnuk topp mi nga noonu mbokk gis nañu bi ñu fi mujjee daje démb suñu borom di wax ni muy jaare ak i jaamam mooy jaam yi suñu jengee suñu borom yàlla day indi ay nattu teg leen ci nattu yu metti bokk na la gënaan metti ci nattu mooy xeex rawatina sun jamono yi di ñuy dund tey suñ la laajoon lan mooy musiba yu daje neel rek mooy guerre xoolal lay xew fa la ci Ukraine nga fàttali ko lii li nga daan gis Irak Syrie Libye ila axiri guerre égal bomb yi dal gu dégg ba cëg égal courant amatul ndox amatul ay hôpitaux amatuñu transaction yi yépp dagg nañu fitna famille yi tasaaro ila axiri loolu nag la borom bi wax ni moom la doon jàppee ñu jëkk ak i feebar ak i ñàkk gis ngeen bokk na feebar boo xam ne indi woon na ko daaw jéeg ci suñu réew mi ci suñu adduna gi mu tiital adduna yépp kenn mësul xalaat lu mel ni corona mën na am ci kaw suuf lu jege un mois benn avion naawul dëkk yi ñu coupé leen tubaab ak ni mu bëggee liberté caaxaan ñu tëj leen seen biir kër yi loolee kenn mënu koon imaginer suñu borom nag nee na nit ñi bu ñu demee fetteerlu su boobaa nag damay indi beneen méthode bi ca mooy ubbil leen xéewalu àdduna ko defee ñu fàtte diine fetteerlu ci caay-caay ma jàpp leen nag ci betteel mu ne su ma leen jàppee ci betteel kenn du rëcc na am mba ko xeet bu yàlla ñëw di mbugal kenn du rëcc kenn du rëcc moo tax mu ne ñu mujjoon gannaaw sax mbugal nañ leen waxumaa nag ñu jiitu waaye waxoon naa leen démb ci ne alhamdulillah suñu yonent yàlla muhammad moo ñaan yàlla xeet bi ak lu ñu mën a def yàlla bu leen boole alak mukk léeg-léeg nag mu am ay fenn fu yàlla di wàcc ay mbugalam amma boole xeet bi yépp xatta xuti a daabirul qawm loolu moom yàlla du ko defe xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mbokk borom bi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla moo indi mbugalam ne alhamdulillahi rabbil alamin na am mbokk alhamdulillahi rabbil alamin saay saay si def lu bon ci kaw suuf ñoom ñoo indi désordre ci kaw suuf seen conséquence kenn du ci mucc moo tax yonente bi alayhi salatu wasalam ne nit ki bu saay-saay bu deeyee jaam yi dañu noppalu ci moom dëkk bi noppalu ci moom zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nas mboolem catastrophe yi am ci taw bi bañ a am meññeent amul géej gi yëngu luy musiba rek xamal ne bakkaaru doomu aadama yi ñoo ko def mais yàlla bi mu ñu indi ci kaw suuf da ko prévoir woon mu nekk mah mahda lépp lu ñu aajoo mu jox ñu ko amma bu say-say si yëngoo mu indi désordre ngiree ñu dellu gannaaw say-say soos nag bu leen yàlla reyee alhamdulillahi rabbil alamin mbokk ab atee ab bokkaalekat kuy woote jëmi ci réer heure boo déggee dee na alhamdulillahi rabbil alamin nga war a wax borom bi nag daal di delluwaat ca la taxoon saar bi wàcc bal la taxoon saari màkka yépp wàcc te mooy wéetal yàlla jalla waala borom bi mu ne waa xool leen su ma xëyoon jël seen dégg gi seen gis yi tëj seen xol yi ana ku leen koy delloo awaleen julit sa dégg gi fan la jóge bët yi ngay xoole fan la jóge xel mi ngay xol bi ngay xalaate fan la jóge suma borom mu ne huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wala absara wala afida qalilan ma tashkurun nee na maa leen créé à partir de zéro may leen ngeen di dégg may leen ngeen di gis may leen xol bu ngeen di xalaate lu néew ci yéen ñooy sant waaw bu yàlla xëyoon nag jël loolu comme niñ koy gisee un peu partout dans le monde ay millions yoo xam ne mënuñoo dégg am na ci ay doomi président doomi milliardaire waaye judd nañu dégguñu c'est fini kenn mënu tax ñu dégg des millions yoo xam ne duñu gis tey kenn mënu ci dara des millions de dof partout dans le monde kenn mënu ci dara loolee mbokk kon yàlla moo ko moom ca yàlla koy sàmm loolu tax suñu borom jàlla ne su yonente bi daan wax naan allahuma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana e yàlla yàlla nag ñuy xéewal may ñu ñuy dégg xéewal ñu may ñu ñuy gis xéewal ñuy am kattan gu ñuy mënal suñu bopp fii ñoo ngi dund yàlla defaloon na ko ko yàlla na yàlla defal ñu ko loolu mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag mu ne maa ngi di teqale samay aaya waaye teewul ba tey nit ñi ñi ngi nekk di jadd yoonu njub borom bi daal di bàyyi lool ne waaw su doon te ne dama ñëw bette leen ak mbugal mbokk bu yàlla indee mbugalu mbetteel ci yéen ana ban yàlla moo ko mën a fonk te it mbokk da ngay gis ni aka bari lu ëpp ci doomu aadama yi heure bu ñuy dee ci mbetteel la ñuy dee xoolal oto yi ñuy war rek bi ma mujjee dégg dañ ne en moyenne dana rey trois mille personnes par jour de par le monde te mbokk lan mooy accident accident mooy dee mbetteel toilette ba jekk tàggoo maa ngi dem céet ga maa ngi dem ngente diw maa ngi dem suñu réunion ba ndekete yoo te dee mi ngi lay xaar alub kaañ ndekete yee doy dee mi ngi lay xaar mbuur wala ngeen genewu mi ngi noonu ci fraction de seconde boo xam ne nii yow dee nga doo xam sax lu la rey gis ngeen doo xam sax lu la rey su ko defee kon loolu mooy mbetteel bu yàlla indi na am waaw bu dee du koy indi muy ñëw nag yàlla indi mbugal mi ngi ñëw kan moo ko mën a fànq boo ko tey dañ naan première puissance mondiale mooy États-Unis néew na nga toog six mois yoo déggul benn cyclone mooy ngelaw yu tar yooyu seen nañ ko mi ngi ñëw ñu avertir population bi déplacer des millions léeg-léeg indi ay barrage lu nañu def ko teewul ngelaw bi kan moo ko mën a fànq yàlla dana ko indi mu faagaagal ci ñoom la ko neex ci ay nit yàq fa des milliards de dollars mënuñu ci dara mi ngi noonu yàlla ma sa indi at yële ca gannaaw New York benn xiinu ngelaw boo xam ne dëkk bi dafa lëndëm këriis kenn du mën a gis sa bopp dara lañ ci mën su ko defee kon borom bi mu ne nag kan mooy alku lu dul xeet boo xam ne ay tooñkat lañu ñan ñooy dëgg-dëgg tooñkat mooy ñuy bokkaale seen borom loolu mooy tooñ gi gën a rëy doonte ne tooñ say moroom it dalay alak yonent bi alayhi salaam ne woon na sahaaba yi ndax xam ngeen ki perte dëgg ñu ne ko ah yàlla ak yonentum ñoo xam mu ne koo xam ne indi nay julleem indi ay kooram yowmal qiyaama bañ xool jëfam yi normal waaye nag lekkoon na alali ñee fayu leen tuuroon na dereti ñee yàqoon na deri ñee ñu jël leen dajale leen tibb ci tuyaaba yi di leen fay ba tuyaaba yi jeex ñu tibb ca bakkaar yi ñam tooñoon sëf ko ko mu jóge fa dem sawara yal na yàlla musal ñu ci kon kenn du alkool dul tooñkat borom bi nag daal di ne xam leen ni yeneent yi may yónni benn mission rek laa leen sant dem leen bégal samay jaam ci ni ku jaar ci yoon wi ma rëdd àddina la jëm dem leen xupp samay jaam ci ni ku jaar ci yoon wi ma tere sawara la jëm loolu dong la yeneent man amaluñu lor amaluñu njëriñ doo jàq ba woo ko doo yaakaar ku dul yàlla suñu borom nag mu ne bu yonent yi ñëwee koo xam ne gëm na yàlla ba pare yéwénal ay jëfam ay jëf la yàlla subhanahu wa taala jëflu suñu borom yàlla mu ne ku mel nii day allaaxira jëm jëm du am lu mu fay ragal malaaka yi dañ ko teeru dalal ko ne leen laa xawfun aleykum amu leen li ngeen di ragal lépp lu ñu bàyyi ci àdduna it amuñu luñ ciy tiisu suñu borom dana dalal seen xel ci loolu ndax xam nañ ne fañ jëm bokkul ak fi ñu jógee borom boobu nag ne bu yonent yi ñëwee woote ña nga xam ne dañoo weddi samay aaya ñu mel nii day mbugal dana leen dal ca la ñu nekkoon di ko génn topp nga xam ngeen ne mbokk ñaar mu mën a gëm moo moo mën a am nit ki mën nga gëm doo jëfe ñu ngi noonu moo tax borom bi ne amana wa aslaha waaye ki weddi moom mënta def lu baax moo tax mu ne ña weddi moom mbugal dana leen dal te nañu nekkoon di ko génn ak topp mi ngi noonu Cheikh Ousmane
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين barakallahu fikum suñu borom mu ne qul la aqulu lakum indi xazainullah nel man day duma wax mukk ñeel leen ne lii di magasin yàlla yi ci man la nekk wala a'lamul ghayb ca man day xawma kumpa wala aqulu lakum inni malak duma leen wax mukkit ne man malaaka la in attabi'u illa ma yuha ilayya man day duma topp lu dul li nga xam ne yàlla xamal na ko jëme ko ci man muy wax yu bay qul hal yastawi al a'ma wal basir laaj leen ndax dana yem aji gis ji aji gumba ji ak aji gis ji afala tatafakkaruun ama ndax du ngeen doon ñuy xalaat wa anzir bihi alladhina yakhafun e way xuppal ma ci alquran ji ña nga xam ne ragal nañu an yuhsharu ila rabbihim ñu dadala leen jëme ci seen boroom laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un te du leen ñeel gannaaw yàlla kenn ku leen di féetewoo wala kenn ku leen di ñaanal intervention muy rammu la'allahum yattaqun ngiree ñoom ñu ragal yàlla wala tatrudi alladhina yad'una rabbahum e waay bul dàq mukk ñi nga xam ne dañuy woo seen boroom bil ghadaati wal ashi ca suba ga ak ca ngoon ga yuriduuna wajha di sakku la nga xam ne mooy kanamug yàlla ga te muy ngërëmam ma alayka min xisaabihim min shay'in nekkul ci yow ca la nga xame ne nii moom mooy règle ba ñu leen war a règle alaxira dara ñeelu la ci dara wa ma min xisaabika alayhim min shay'in yewit nama la nar a réglé ëllëg ñoom dara ñeeru leen ci fa tatrudahum tey bis boo leen dàqee day fa takuna min alzalimin kon da nga bokk te ña nga xam ne ay tooñkat lañu mi ngi noonu bokk gis nañu ne suñu boroom subhanahu wa taala yonent yi mu daan yónni yépp bokk na lu yàlla daan def seen loxo daawul jot seen gannaaw nekkuñu woon ay millionnaire mi ngi noonu ñu néew ca ñoom la loolee doon lu ñu dab lu mel ne daawuda ak suleymaan waaye li ëppoon ci ñoom amuñu woon dara yéeféer yi nag dañ doon wax naan waaw kii nga xam ne nii nee na yàlla ko yónni ba pare mu ngi nekk fii di dox ci marché yi pour lu mu dundee suñu borom ne tontu leen na leen lii de mànga siinu yàlla day man nekkuma koo xam ne nii maa ko yor mi ngi noonu bay am kenn ku ma cay jox wala kenn ku ma cay xañ mu wuteeg li ñu yàgg a dégg suñu réew mi ñoo xam ne dañoom ay kanu ki prise bokk wërsëg ci loxo yàlla la nekk muy adduna nag di àllaaxira looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloog waa Quraysh jàkkaarloog bani Hashim jàkkaarloog damam ja Fatima ne ko sama alal day la ma moom loo ma ci ñaan may loo bëgg ñaan ma ci waaye mënuluma la ci yàlla ci dara gis ngeen gannaaw bi it man xawma kumpa ca na am mi ngi noonu mbokk yonent yi xamuñu woon kumpa suñu borom mu ne qul law kuntu alamul ghayb lastaksartu min al khayr wa ma massani su min noonu in ana ila nazirun wa bashirun li qawmi yu'minun man day su ma xamoon kumpa ah kon kay xéewlu àdduna yépp danaa ko dajale ca kon lor du ma dal ñaata yoon la dem guerre ñu ñu ñu ñu indi fa ay jafe-jafe ah dàq leen fa ñaata yoon la yónni ay sahabaam ñu sonal leen kon yonent boobu xamul woon kumpa ba ko kumpa yàlla ko xam heure bu ko neexee nag am lum leen ca xamal ñu jottali ko waaye kumpa gu boy yàlla rek moo ko xam da ngay xool rek masalan yonent bi alei salatu wasalaam bokk na lu gën a marqué ak dundam soxnaam si di aïcha radiallahu anha moom la gën a bëgg ci soxnaam ànd naag moom ci tukki ba ñuy dem aïcha dem di faj aajoom ñoo fekk armée bi dem ki nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam nemmeeku ko ba jóge foofu mërsët kenn ci sahaba yi daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di ñëw fekk Aïcha fam nekk mu daal di ànd ak moom bi loolu amee rek naafiq yi tàllal seeni lammiñ nag ah kii moom lan la doon def ba yonent bi bàyyi ko lan la doon def ba kii nga xam ne nii mooy ànd ànd ak moom loolee mbokk jur fitna ba yegg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba affaire bi jaxase yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yonent bi di woo Ali ibn Abi Talib ak ay barira di leen laaj ndax am nga lu ngeen xam ci Aïcha gis ngeen loolu lépp mbokk xamul kumpa ci Aïcha lan moo tax mu des gannaaw ba kii kii ànd ak moom indi ko jege na weer ba Aïcha feebar ba dem kër papaam ca la yàlla doog a wàcce alxuraan nag xamal ko dëgg-dëgg mbir bi ni mu demee muy suratu nuur ñu koy jàng bi la yumi diin et pourtant mook Aïcha ñoo ànd ci benn tukki loolu benn misaal la ci téeméeri misaal yi nga mën a jël ci dund yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne xamul woon la nga xam ne mooy kumpa mu safaanoo nag ak la nga xam ne moom la ñuy jiiñ ñu bëri ñi nga xam ne dañoo ñëw ci gannaawam gannaaw ba it nee leen man duma malaaka ca bokk ñu luñ doon wax waaw nee na moom muy nitug yàlla de yamshi fil aswaq yaakulu taam wa yamshi fil aswaq day añ ni ñuy aña di reer ni ñuy aña ba pare nee na moom mooy tànne fu yàlla na am may tànne fu yàlla waaye duma malaaka nit la comme yéen kon damay lekk damay naan gannaaw ba it ngeen naaw koo asamaan nit la comme yéen mënuma naaw koo asamaan gis ngeen man day sama warugar mooy damay topp rek li yàlla wax yu ci man te gaa yi xam leen ni loolu moom mooy aslun fil ibadat bépp jaamu yàlla gu ñuy jaamu yàlla topp la war a doon topp rek la war a doon ka ca jiitu mooy yonent yàlla bi nee na man topp ma lu dul yàlla ne nii laa bëgg ñu jaamoo ma ko yow mi ñëw gannaaw ba it lenn rek moo la war topp la yonent boobu sallallahu alayhi wasallam indi woon loolu tax daana wax naan kullu bid'atin dalala lépp loo xam ne nit ko sos na ko di ko jaamoo yàlla lu bokkul ak lam topp ci sunna nee na loolu ak réer la gis ngeen gannaaw ba it borom bi nag ne ndax dana yem kiy gis ak ki gumba ki gis mooy lan mooy ki gis yoonu yàlla xam ne yàlla kenn la gis yonent yàlla xam ne mooy jaamu yàlla gis diine yàlla ji muy diine bu sell mu jaar ci ndax dana yem ak gumba gi nga xam ne day làmbatu xamul fu mu jëm suñu borom daa di ne ay yow yonent yàlla bi alxuraan ji jël ko waar ci ñi nga xam ne ragal nañ ne bisa ngi ñëw ñu dajale leen ci kanamu yàlla duñu fa am kenn ku leen di féetewoo wala kenn ku leen di ràmm mbokk bis boobu jara waajal yonent bi alei salaam nee na bu ñuy yàlla di dajale ñu génn suñuy bàmmeel dañuy génni mi ngi noonu xufaatan xurula kenn du sol yére xurra kenn du sol yére xufa kenn du sol dàll lañ daggoon ci yow ba ngay dugg néegu góor sax day ñëwaat ñu ne futt doon yaramu neen gis ngeen bu keroogee mbokk julit mu ne waaral ñi nga xam ne xam nañ ne benn yaakaar fa am muy yàlla xam nañ ne kenn du fa ñëw di ñaanal kenn njekk ko dul yàlla moom rek mooy tànn ku ko neex na ko diw sant naa la nga ñaan ma njekk ngir diw yaakaar yépp dellu ci yàlla jëll wa ala ñii de boo leen waaree daan jëruñu waaye mbokk seytaane lan la indi seytaane li mu indil doomu aadama yi mooy déedéet ah gannaaw yàlla am na ñu fa am na boromi daraja yu leen di xaar alaxira gis ngeen darul ngeen di tiit darul ngeen di ragal mi ngeen noonu loo xam ne nettali naa leen ko ay yoon benn waay ñëw ci ay góor yi mu toogal ne leen xëy diw de moo dem di ma boole nee na daal kii daal léegi rek moom bu ñuy julli day toog fi mu toog ma ne ko yaa ñàkk a xam gis nga li muy jullee kas néew yéen rek a tax julli gi dara laa ci yaakaarul man àllaaxira wóor na ma ne suñ demee àllaaxira waxuma man waaye Sénégal ku fi juddoo sax àddina la jëm ngir seen diw yaa ngi dégg mbokk lii mooy suñuy wax ngi noonu ñu dolli ñaan suñu mbokk ba laaji Fajur Gueye comme lu mel nii rek nettali naa leen nee na dem na ci benn région ci région Dakar région Sénégal fekk fa benn chef régional Sénélec bi nee na mi ngi koy gis mi ngi bàyyi ay soxnaam fii chaque guddi mu indi gel bu bees mu ne ko diw yow doo ragal yàlla ci li ngay def hoo fajur yéen ay ibaadu ngeen amu leen lu ngeen yaakaar man nag yaakaar naa seen diw su ma demee dana ma tabal àjjana jeex na yaa ngi dégg mbokk lii ki nga xam ne dafa am garantie bi lu ko neex def lu ko neex def loolu moo tax ba mbokk julit moom day ragal faman kaana yarju faman kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saliha borom bi ne wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan ki ragal kere gu muy taxaw ci kanamu boromam kii rek moo mën a texe nan lay ragal gu nu mu koy dëggale day gëm yàlla def lu baax jeex na borom boobu nag subhanahu wa taala ni bul ma dàqal mukk ñii di woo seen borom ci suba yi ak ci ngoon yi bokk yéefiri arab yi am na ñu ñëw ci yeneen tibaale sam na ko waaw bon léegi yow li ngay woote baax na mais ñun en tant que ay kilifa nan la ñuy toogee ak baadoolo yi ay bilal ay xabaab ay ibnu masoud ay nag ah non non non léegi daal boo bëggee ñu toog ak yow da nga ñuy fexe de toog ak ñun ñii ñoom bu ñëwee nga dégager leen gis ngeen ba dañ ne yonent bi alayhi salaam ci wàllu stratégie da'wa pour xalaat ne ñii bu ñu duggee lislaam dana am doole xaw na ko sax def suñu borom yàlla subhanahu wa taala indi ay aaya yu bëri bokk na ci bii ne ko déedéet bul def loolu ñii nga xam ne wër nañu la di woo yàlla ca jamono makka ñaari julli presque moo amoon mooy suba gi ak ngoon gi fu ñu toll ñu ngi woo yàlla suba ak ngoon sàkku wuñu lu dul ngërëmal yàlla ngalla waay bu bu leen dàq mukk bu leen dàq mukk ndax kat xamal ne xisaab ba ma leen di xisaab yowmal qiyaama du ma la ko laaj yow it xisaab bi ma lay xisaab du ma leen ko laaj mbokk yonent bi daa am lu ko war am lu ñu war fa innama alayhi ma xummila wa alaykum ma xummiltum li war yonent bi mooy mu jottali li ñu war mooy ñun ñu topp ko yonent bi bu xisee ba jottali fa la biram yem kii buur la ak baadoola la yàlla laaju ko loolu jottalil ñépp rek amma yow mi yonent bi jottiit xamal ne sa warugar mooy nga topp loolu mi ngi noonu amma nag mbokk bi ñu demee ba jamono soppeeku lan ngeen gis mooy kilifa ñi ñuy woote kilifa ak diine saal ya ñuy recevoir borom 4x4 yaag borom millionnaire ya ndax dana bokk fa ñuy recevoir borom sareet ya la wallahi ñay indi enveloppe yu duuf yu diisee ndax dana yem ak ñi nga xam ne ay 100 francs ci 200 la ñuy joxe la wallahi bu ñu demee nañuy yëkkati ca tribune officielle ca kaw ñu yor carte d'or ya ndax borom sareet dana fa dana fa taxaw la wallahi lii nag mbokk dafa doon loo xam ne safaanoo na ak la yonent yàlla yee doon doxale ci incha allah ñu déglu Cheikh Ousmane
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd naka noonu day lañu fitna la lenn ci ñoom ca la ca des li yaqulu a haula'i manna allahu alayhim min baynina ñi dañuy wax ne ama ndax ñii mi ngi noonu ñooy ña nga xam ne nii ñoom la yàlla subhanahu wa taala baaxee ci seen kaw baaxee gu bokkul ak ñun mooy teg ñoom la yàlla teg suñu kaw alaysa allahu bi alama bi shakirin ama ndax yàlla nekkul di gën a xam ña nga xam ne ñooy ñay sant wa ida jaaka allazina yuminuuna bi ayatina heure bu la dikkalee ña nga xam ne dañoo gëm suñuy aaya faqul salaamun alaykum nee leen day jàmm day yàlla na ànd ak yéen kataba rabbukum ala nafsihi rahma xam leen ne yàlla day bind na ci boppam faratal na ci boppam li di yërmande annahu man amila minkum su'an bi jahala ca mooy képp ku def ci yéen lu bon ca la nga xam ne muy ak réer thumma taaba min ba'dihi wa aslaha gannaaw ba mu tuub gannaaw loolu ca yewenal fa annahu ghafurur rahim su boobaa day yàlla moom kuy jéggalaate la kuy yërëmaate la وكذلك نفصل الآيات نكلي دي لني تقل آيي ولتستبين سبيل المجرمين جريم رنيكو يونو كتشوري دفكو تبكاري مجيا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله نل من دي ترين نجم مي جامو لين دي جامو تدو يلا قل لا أتبع أهواءكم نل من دي دمو تبمك سيني بانيخ قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين su boobaa day sanku na te bokk moo ca ña nga xam ne dañoo jub mi ngi noonu bokk suñu borom mu ni yow yonent bi lii ñu lay proposé naka jekk nii laa masa fitnaale ñi fi jiitu woon ba ñoom ñu doon wax seeni yonent yéen ngeen ne yéen la yàlla tànn yow ñan ñii la topp ndax ñii ñoo ñi yàlla tànn ci ñun suñu borom mu ne yàlla day xam nañuy sant ca mbokk ko ci jiitu woon ma yonent yàlla nuux ba mu wootee ñëkk a gëm moom mooy baadoole yi ca loolu mbokk société bu mu mën a doon ci kaw suuf dañoo xaajaloo ña nga xam ne ñoo am am ay aristocrates yi dañuy xeeb ni ci de suufeel leen gëmloo leen ne yéen du ngeen dara noonu ngeen juddoo noonu ngeen ni deyee diine nag bu ñëwee danaan déedéet yéen ñépp a bokk maam ki gën ci yéen mooy ki gën a jege yàlla su ko defee ñooñu ñu suufaloon dao boobu dañ koy teel a comprendre teel koo nangu amma saay saay see nga xam ne ñoom ñoo mbëru woon ci kaw nit ñi ñoo wax leen wàcc leen yem ak nit ñi loolu moom seytaanu du leen ci seetaan loolu tax ñu leen ci yàlla noonu lu ko gaa yi waxoon a nu'mina laka wattaba'aka al arsalun noonu luñ la mën a gëmee ci yow xoolal ñu la wër ñëpp mooy baadalu dëkk bi rek la wër gis ngeen yonent yàlla muhammad it naka noonu mbokk bi mu wootee la ëppoon ña ko wër mooy baadoole ya gis ngeen su ko defee nag ñu naan waa ñii la yàlla baaxee ci ñun ah mbokk kon nga xam ne mbaaxug yàlla mooy leen mooy mu dugal la ci diine galla waay jàpp naa ne yéen ndaw ñi nekk fii amu ci kenn ci yéen kuñ ne nañ dajale nguurug Putin nguurug Biden nguurug dof yi nekk Occident yépp dox la ko ca nga bàyyi sa diine du ngeen ko nangu am déet kon xam ngeen ne yàlla xéewal na leen lu gën loolu am déet tey jii milliardaire bi amoon multi milliards jàpp naa ne kanam yi muy gis yépp kuñ ci ne woon kaay ñu xool le plus grand milliardaire du monde tey bul julli takkusaan ba pare daañ la dox milliards yooyu doo ko nangu kon xam nga ne yàlla wërsëgal na lu mën ëpp loolu aha ulaai lazina manna allahu alayhim ndax ñii la yàlla baaxe suñu borom mu ne maa gën a xam ñiy sant maa gën a xam sama jaam yi nga xam ni su ma leen dugalee sama diine ji ñu sant ma mbokk sant yàlla weesuwul wéetal yàlla def ay ndigalam bàyyi ay tereem ñun nag nañ jàppe cant moom yéen ñëpp xam ngeen ko mi ngi noonu dajaleeg jànq jaag xale yu góor ya fanaane dukkat ba suba fecc ba suba lekk cere ya naan kafe ya ne àddina lañ jëm jeex na loolu mbokk suñuy mbir la sant yàlla moom mooy nga wéetal yàlla nangu ne jaamub yàlla nga def ay ndigalam bàyyi ay tereem ay xéewalam nga delloo ko fa ko neex yàlla nag mu ne xam naa ña ko yeyoo a alamu bi shakirin barab bi nag ne ko yonente bi alei salaam ñooñu ñuy wax buñ la dikkalee ngalla waay teeru leen ne leen salaamun aleykum teeru leen teral leen jox leen seen gëdd te looleen mbokk di mbir boo xam ni bu la yàlla mayee ay daraja nga war ci bàyyi xel bu baax daraja la xam-xam la njiit la alal la mooy en général ñooñu nga xam ne dañuy ñëw di ñaan si ay ndimbal wala ñëw di ñaan si ay nangam soo moytul rek da ngay gis na da nga leen suufantal te yow mi nga xam ne yàlla dala baaxe nit ñi jëm ci yow da nga war a sant yàlla bul wane rek suñu borom ngir yarnu erreur bu mel noonu teg na ko suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu nekkee di magi quraish yi ñëw da ko waa muhammad daal tey dañ laa bëgg a déglu mu kontaan lool yàkkamti lool commencé di développer ummi maktum moom silmaxa la xamul lu xew ma nga jële fan ak yatoom ñëw ya rasulullah ya rasulullah lan moo mujjëwaat ci téereb yàlla bi yonente bi mer ndax ni mu koy déranger abbasa wa tawalla ma ne la foofu la yàlla subhanahu wa taala yónni jibril yedd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jëf jooju lan la yonente mu doon def bu seenee abdullah di ñëw day jóg gàttandu ko téye ci loxo bi teg ko ci wetam gis ngeen ne kii la ma yàlla yedde loolu it naka noonu yow mi bokk ci famille yàlla may lay million léeg-léeg nit ñi ñëw di la diis seeni soxla galla waaye teeru leen teral leen sant yàlla bu neexoon yàlla wëlbati buul bi de mi ngi noonu kii ñëw tey yow yaay dem di ko di di ko rang loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax kon teeru leen ne leen salaamun aleykum mucc day ñi ngi ñaan mucc ànd ak yéen adduna ak alaxira gis ngeen seen borom yàlla day bind na ci boppam yërmande yërmande ja mooy lan mooy lu way mën a def lu bon ci ak réer réer googu mbokk firiwul ñàkk a xam réer mooy ci càggante bu doon looloo dañ naan ki xam ne sangara aram na bu naanee bu tuubee yàlla du ko baale ki xam njaaloo aram na bu tuubee yàlla du ko baale déedéet jëhaale bi mooy ci càggante donte ne xamoon na ne xaram na waaye defoon na ko ci càggante heure bu tuubee yéwénal la des ci dundam yàlla baal ko bu tuubee bàkkaar ba nga xam ne weesu na li des ci dundam mu dëggal tuub gi nan la ko dëggale mooy dem na ba dajeeg boromam ci tuub su boobaa yàlla subhanahu wa taala dana ko baal ak lam def lu mu garaaw garaaw garaaw yàlla subhanahu wa taala dana ko baal loolee ngeen ñu bàyyi ci xel bu baax comme nañ ko waxee ñoo xam ne def nañ lu gën a garaaw takk xare xeex yonent yàlla teewul yàlla baal leen borom boobu subhanahu wa taala nag ne maa ngi nii lay leerale samay aaya ngiree mu ràññee ko yoonu kaccoor yi mbokk nit ku baax du ne mooy ki mucc ci bàkkaar bàkkaar yàlla mën na koo nattoo ku nekk waaye xam nga ki bon dëgg kàccoor dëgg-dëgg mooy ki sax ci bàkkaar firtirlu ci bàkkaar moo tax suñu borom wax ñu ca nuur wa man lam yatub fa ulaika humu zalimun kii nanguwul tuub kooku may tooñkat waaye amma képp ku yàlla subhanahu wa taala nattoo nga tuub dellu ci yàlla su booba yàlla moom jéggal la suñu borom dellu wàccub yonentam ne ko nee leen qul te wax na leen ko démb day mooy qul qul muy wane ne alquran ji ci yàlla la jóge donte ne am na fi benn saay saay buurub arab bu mas a bind benn téeréem téere bu ñuy tuddee yàlla indi alquranam mu bind ab tiivéréem livre vert mi ngi noonu woo peuplam presque ñuy ne ñuy topp recommandation yooyu bokkoon na ca nam mbëroo woon mooy qul yi nekk ci alquran amul benn sens xul yi nekk ci alxuraan amul benn sens ba jamono jooju sax daarul ifta ca arabi saoudite dañ ne woon ki yéeféer la waaye yàlla ko bëgg a toroxlu ab téeréem yow lay toroxal ci li ma xam ci histoire moom rek laa gis buur bu yàlla subhanahu wa taala toroxal ñu rey ko futti ko mun a jang-jang mi nga noonu ak short bañ ko solal gannaaw ba mu wanee nguur goo xam ne nii néew na ku ko mënoon a dékk ci nguur mbokk yàlla kenn du fay ab téeréem mi ngi noonu kon xul waxal loolu day dëggal ci alxuraan ci yàlla la jóge ne leen man de tere nañ ma may jaamu li ngeen di jaamu ca du yàlla te du ma topp mukk seeni bànneex bis moo ko defee réer naa te yéen mbokk aaye bi lu bari ci nit ñi comprendre ñu ko gis naa benn kilifa gu mag ci Dakar jiite mbooloo yu mag mu ne hey ñun ay jurit lañu dañuy julli ak a woor waaye sun maam yi lii mun ñu bàyyee ci suñu xërëm yii lee am ca ir serpent yii am ca nangam loolee moom duñ ko bàyyi mbokk ki comprendre l'islam islam comprendre l'islam mooy islam jàpp la doog a bàyyi la doog a jàpp la ilaha illa allah islam yi nga noonu mooy la ilaha lépp loo xam ne dañ ca doon jublu di ko yaakaar bois sacré yaag xamb yaag xërëm yaag jaan yaag yañ doon def yépp yow mi comprendre l'islam yooyu yépp da nga koy dégager ba pare doog a wax nag illa allah loolu mi nga noonu su ko defee mbokk jullit du jaamu yàlla du jaamu leneen du ñu jaamu ca du yàlla doo wax rek maa ngi jaamu yàlla kon jurit la lii sama xeet moo koy def naa ci ànd ak ñoom masla la wallahi borom boobu subhanahu wa taala ne nee leen loolu de moo ko defee sànku naa te bokkutu ma ca ña nga xam ne dañoo jub mi ngi noonu cheikh ousmane
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بارك الله فيكم سن بروم جل وعلا مني قل إني على بينة من ربي نيلن من دي مانجي تي ليو لير يبوو سما بروم wa kazzabatum bihi yéen nag weddi ngeen ko maa indi ma tastadiluuna bi nekkul ci man day la ngeen di sakku di ko yàkkamti jëme ca inil xukmu illa lillah atte day ñeelul ku dul yàlla yaqussu lxaq mooy nettali dëgg wa huwa xayrul fasilin te mooy ka gën ca ña nga xam ne dañuy teqalee qul law anna indi ma tastacdiluuna bi neel man day bu doon daa nekk ci man la ngeen di yàkkamti jëme ca la qudiya al amru bayni wa baynakum kon doon nañu dogal mbir yi sama diggante ak seen diggante wallahu aalamu bi zalimin xam leen yàlla day moo gën a xam tooñkat ya wa indahu mafatihu lxayb nekk na ci moom lii di caabi kumpa laa yaclamuha illa hu kenn xamu ko ku dul moom kese wa ya'lamu ma fi albarri wal bahr xam ne lépp lu nekk ci suuf si ak lépp lu nekk ci géej ga wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha du wadd mukk benn xob lu dul xam na ko wala habatin fi zulumat al ard wala benn pepp ci lënd mi suuf sa wala ratu wala lenn loo xam ne nii dafay wow wala ratbin wala yaabis wala lenn loo wala ratibin lépp luy tooy wala yaabisin wala lenn luy wow illa fi kitaabi mubin lu dul daa nekk ci téere boo xam ni téere bu leer la mi ngi noonu mbokk suñu boroom mu ne yow yonent bi ne leen maa ngi nekk ci lay yu leer yu bawoo ci sama boroom mbokk nañu xam ne alxaq min rabbik mooy diine ji bokk na lu gën a naqarib julit nga xamal ko ne diine ji muhammad alayhi salaam moo ko moo ko tëral la wallahi yonent yàlla bi jottali rek la def moo tax mu ne maa ngi nekk ci lay yu leer yu bawoo sama borom yéen nag weddi ngeen ko ba pare ni naa leen indil mbugal xam leen ne day la ngeen di yàkkamti ci mbugal loolu nekkul ci sama loxo atte ci loxo yàlla rek la nekk mooy dogal ci ay jaamam lu ko neex keneen ku dul yàlla du ko ci dogal ca it ngalawaay yow julit gannaa yor loolu inil xukmu illa lillah yow ndawal julit xamal ne lu aju ci sa wërsëg lu aju sa wér gu yaram lu aju ci sa réussite lu aju ci lépp lu mën a doon yàlla rek mooy atte lu ko neex ci ay jaamam amul benn jaam bu mënal moroomam dara ci njëriñ wala ci tegir ko lor innil xukmu illa lillah yàlla moomu nag nee na mooy nettali dëgg tey nettali na alaxira naka lay nar a deme lan moo fay musale te buñ ñëwee moo gën ci ñiy teqale ay jaamam mbokk yàlla rek mën a atte ay jaamam ndax moom rek moo xam kumpa rasul sallallahu alayhi wasallam gaa yi daanañ ñëw ci moom di attewu mu ne leen ah maa ngi leen di atte de mën na am nag ci yéen ku gën a saf làmmiñ ba ma jël dëgg jox ko waaye na xam ne sawara laa dëgg jox ko amma suñu borom jalla wa ala heure buy atte ay jaamam moom innahu ala kulli shay'in shahid moom daa fekk lépp looloo tax moom dong moo mën a atte waaye attekat ci kaw suuf mun dañuy wax rek ne lii la loi bi wax waaye mënuñoo atte la nga xam ne mooy dëgg dëgg dëgg atte bi xataa tubaab yi sax dañuy wax lu mel noonu mooy nous disons le droit mais nous ne rendons pas la justice kaa daal mën na am nga ñëw ne daal loi bi lii la wax ah kon ngeen ne kii lii la def kon nañ ko tëj nangam wala sax nga ne nañ ko rey fekk kooku lañ ko waxal dara amu ci amma suñu borom jalla wa ala moom rek mooy xayrul fasilin yow yonent bi ne leen ba doon li ngeen di yàkkamti ci man ci mbugal daa nekk sama loxo kon kay yàlla atte woon suñu diggante waaye nag yàlla moo gën a xam tooñkat yi mi ngi noonu su doon te ne li ngeen may laaj dama koo mënoon kon danaa leen ko won waaye comme mënuma ko yàlla mi xam lépp moo gën a xam la nga xamee ne nii moom mooy tooñkat yi mbokk yàlla moomu jalla wa ala nag moo ñuy wax ne xam leen ni lii di caabi kumpa ci loxoom la nekk mi ngi noonu kenn xamu ko ku dul moom comme niñ ko waxe sànq boo dellu woon borom bi mu ne inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu alghaysa wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut mu ne yéen doomu aadama yi xam leen xam-xamu bi si penc yàllaa ko xam jibril xamu ko muhammad xamu ko ah yàlla mooy wàcce taw nam ko neexe tey gars yi ndax waa météo mën nañu wax nawet bii di ñëw jour tel lay taw jour tel lay taw jour tel lay taw ndax loolu mën nañ ko laa yunazilul xays mooy wàcce taw nam ko neexe fam ko neexe ak quantité ba ko neexe wa yaalamu ma fil arham la nga xam ne moom la jigéen ñi ëmb nit ña ñay ya janax ya lu mën a doon lañ ëmb yàlla xam ne nekk ci biiram day baax day bon day dund day dee day gudd fan day nangam moom rek xam ne nekk ca biir arham ya mu ne nag doomu aadama xamul lu muy nar a liggéey suba nga noonu waaye doomu aadama kenn ci ñun moo mën a wax ne suba léegi li lay def kan ci ñun moo la mën a waat ne heure bi suba dana ko fekk ci kaw suuf kenn mënu ko waat kenn mënu ko waat gis ngeen kon kenn xamul luy liggéey suba ak bari koo xam ne nii programme ba nga nekk ku la ko waxoon koo xam ne nii ma nga ma nga Kaolack ku ne ko woon tey da nga ñëw Kaolack dana xar boppam te du xam lu ko fi indi mais yàlla dogal mu nga dem Kaolack kee ma nga feneen kee ma nga feneen kon kenn xamul looy liggéey suba gannaaw bi it ba rek mu ne kenn xamul fooy deeyee mbokk dee ngi noonu kenn xamul fooy deeyee yàlla subhanahu wa taala moo ko planifié da ngay gis ko dund Sénégal yaroo Sénégal ba dee jot Angleterre la war a deeyee dajale lam yoroon ci millions yëpp ak i kayitam dem day Angleterre am déet mi ngi noonu kii moom dem day utiliser wala feneen kenn xamul fooy dee ji gis ngeen loolu kon mbokk moom mooy mafatihul xayb lii di caabi kumpa borom boobu nag ne moom xam na li nekk ci biir suuf mbokk biir suuf li ci nekk ca biir montagne ya biir grotte ya li nekk ci biir suuf buñ la waxoon ne boo daggoon un mètre carré ci suuf nga dagg rek un mètre carré ñu mën a yëkkati suuf soosee à peine ay dix centimètres à quinze centimètres dugal ko ci laboratoire ay milliards de mbindaafoon ñoo ci nekk loo xam ne doomu aadama mënu ko gis ci ay bactéries yoo xam ne yu ci yàlla def ak ay yeneen ay yeneen ay yeneen ay yeneen kon yàlla rek moo xam nekk ci biir suuf rawatina nag yow doomu aadama kon yàlla xam na la yàlla xam na li nekk ci biir suuf yaalamu ma fil bar képp kenn ci ñun moo la fi indi xam na la xam ne li ngay jëf xam na sa programme moo ne géej gi it naka noonu ci nekk ci ay milliards yi milliards yi façon jën moo ko xam dara réeru ko fa borom boobu nga ne kon ah xam na de manière générale borom bu ñu déedéet xam naa général xam naa détail gis nga amul benn xob buy wadde ci benn garab wala ci benn gàncax lu dul yàlla xam naa ko di yàlla ko fa defoona keroog ba mu ko fay def xamoon na ne xob sangam jour sangam minute sangam seconde sangam lay wadd na doon garab gala na doon gàncax gala mi ngi noonu mu ne amul benn pepp bu ñuy sànni ci lind mi suuf si lu dul yàlla mun a xam na ko laajal ñoom suñ caam ñu daan bay bay bay dugub ah di larmet rek jël comp groupe di sànni comp di sànni mbokk pepp bi boo ko sànnee am na yuy juutu am yuy tëdd suñu borom yàlla nga gis baykat bi day jël suuf këpp ci kawam da ngay gas dugal ci pepp bi këpp ci kawam masalan pepp bi mën na peser ay zéro virgule nangam gramme nga jëloon tey libre suuf lu ko ëpp mille fois wala dix mille fois teg ko ci kaw pepp bi mais suñu borom bu ko neexee day ñëw fekk pepp bi mu wëlbati ko mu taxaw jël mbakkan gi féete kaw génne ci luy law law yu comme coton bëtt suuf si génne ko mbokk loolu du loolu pepp boobu moo ko defal boppam am na ku ko jàppale waa chaque ne am na ku ko jàppale kon mu ne la ngeen di sànni ci biir lëndëmi suuf yi man xam naa ko waaye naka noonu itamit borom bi subhanahu wa taala noonu muy liggéeyee pepp bi loolu la ñuy wax de yaxluqukum fi butuni ummahatikum xalqan min badi xalqin fi zulumat fi zulumat salas keroog ba ngay nekk pepp si biiru yaay yaa gënoon a tuuti pepp sax donc suratu zayit bi doomu aadama di cosaano il faut ñu multiplier ko un million et quelque de fois pour nit mën koo gis te la la yàlla di boole booleeg lay jege ci ko jigéen ka mu mu daal di indi benn cellule cellule boo xamee ni fa muy départ bët du ko gis yàlla di ko multiplier di ko multiplier bam nekk des milliards ñu ne doomu aadama am na cent mille milliards de cellules moo ko composé loolu mbokk kan moo ko def mooy yàlla mi nga xam ne mooy moo moo xam kumpa ci kumpa googee kenn fekku ko ci ku dul moom borom bi yemul foofu mu ne amul lenn loo xam ne nii garab gum mën a doon boo romb gàncax goo mën a doon la ca wow yàlla mun a xam naa ko la ca tooy yàlla mun a xam naa ko mi ngi noonu lépp it bind naa ko ci ab téere te loolu mbokk ngay gëmee kumpa gëm kumpa mooy lan da ngay gëm ne yàlla xam ne lépp li fiy nar a xew ba ila yawmi diin ba ila ila yàlla xam ne lépp muy de un gannaaw ba yàlla bind na lépp yàlla avant muy génne asamaan yi ak suuf cinquante mille ans bindoon na li nar a xew asamaan ak suuf yi nga noonu tey la ñaar fukki fan ak ñeent ci shahru ramadan mi ngi noonu di am am juróom ñeent ah juróom ah camini bal leen ba kon tey le 25 waaw le 25 ci shahru ramadan 1444 masjidu saad ibn abi waqas yàlla bindoon na ci téeréem ni sama jaam yi dañ fa daje ki bokkoon ca bind ga mënoo ñàkk ñëw ki nga xam ne bokkuloon ca bind ga loo ko waajal waajal waajal waajal doo ñëw am déet ah sëñ bilal ñu dolli ñaan suñu mbokk ba Cheikh Ahmed Dieng ah waaw ñu dolli ko ñaan Cheikh Ahmed Tidiane Dieng dafa jógee unité 18 mi ngi noonu gàddu ab téeréem jëm ci tafsir bi mi ngi noonu di waaxu waaxum bu tàng ñëw ba ci école bi fii mu daanu ñu ngi tafsir de ay xale yi ñëw ñu ne paa bi doon ñëw ci tafsir dafa daanu fii ñoom Bilal Thiam ñii ñoo dem dem di ko secourir avant ñu ko yóbbu hôpital yéeg hôpital faatu na mi ngi noonu ñu boole ko indi ko moom ci boppam en tant que niiw dogal ci biir morgue bi te bi muy jógee këram tafsir la doon ñëw si gis nga mais yàlla lii la yàlla dogaloon ci moom yal na yàlla jéggal ko yàlla yërëm mujj ne jéego yu tedd tedd la la la mujjee bokkub kaamilam mi ngi noonu su ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu kon da ngay gëm ne xam na lépp bind na lépp ñaareel ba it yàlla subhanahu wa taala mooy xalaqa ay moo bind doomu aadama yi bind nit ñi waaye nag qaddara ku nekk nag moo la melal la ko neex masalan yow yàlla moo la bind ngay nit waaye yàlla dogal ngay góor wala jigéen yàlla dogal nga ñuul wala nga weex nga njool wala nga gàtt nga gudd fan nga gàtt fan nga doon ko doon ko am xel wala ñàkk xel loolu mooy la nga xam ni moom la nattale ci yow muy ñeenti essentiel yooyu ñu war koo xam ci kumpa yàlla xam lépp yàlla bind lépp yàlla génn lépp ci mindaa fanam lu nekk it yàlla ko dogal la nga xam ne nii kem ba mu war a yem lii mbokk moom dong moo ko yeyoo kenn mënu koo fekk ci loolu loolu moo tax ba julit moom la nga xam ne moom ngay boole rek mooy sabablu ak ñaan sabablu xam ne yàllay dogal ñaan ñaan yàlla dogal ci yow yiwu àdduna ak yiwu alaxira yal na yàlla dogal ci ñun yiwu àdduna ak yiwu alaxira yal na yàlla may ñu aafiye fi dunia wal axira boole ñu ci jaam yi koy jaamu duñ ko bokkaaleeg dara yal nañu yàlla yërëmal suñu way dawla yi keetal ñu suñu njaboot gi ala siraat almustaqim wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain waaw yàlla ndax li muy wax ak nit ñi moo gën a bëri ala kulli xaal suñu borom heure bu ne ya ayuha allazina amanu nit ak jinne yépp lay waxal mi nga noonu heure bu ne ya ayuha allazina amanu nit ak jinne yépp lay waxal ya ayuha allazina kafaru nit ak jinne yépp lay waxal bal am na borom xam-xam yu ne bu ne ya ayuha annas annas day ëmb nit ak jinne mais li am mooy jinne yi ñoom da ngay gis ne amuñu yonent jinne yi ci yonent yi nit ñi la ñuy basé wu donc seen mbaax ak seen mbon mi ngi déggal ga ñu déggal yonent yi ak ña nga xam ne nii ñoo leen nekk di leen wooteel waaye suñu borom yàlla alquran boo ba da nga fekk suratul jinn borom bi wax jinn yi ba ñu déggee jàngaleeg yàlla gi nañ demee waar la nga xam ne seen i xeet li wér daal ci wér mooy mboolem lu yàlla sant nit ñi ci jaamu yàlla sant na ko jinne yi donte ne ne nam leen ko sante mën na am na ci nañ koy defee mën na wuute ak suñuy def waaye yàlla sant na leen ñu def ko ni leen yàlla bind ak ni yàlla bind nag bokkul doomu aadama sax yaa ngi ni da gis koo xam ne dafa feebar yàlla sant ko mu jóg di taxaw fi mu tëdd lay jullee ñee fañ toog lañ jullee naka noonu it ñoom yàlla sant na leen li ñu yàlla sant ci julli yi ci koor yi ci at makk yi ak nature bi leen yàlla bindee ñu war a topp yonenti yàlla yi wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ndax boo waxee mooy waaw waaw waaw waaw wala kulli xaal day wax rek ne kii daa ñëw ne ko dama laa bëgg a jàppale nga faju léegi nag bi mu fajoo ba pare mu ñëw ne ko waaw li ngay soxla ci li lay faj ñaata la mu ne masalan ndax bu doon cinq cent mille moom mën na am kersa rek ne ko ne ko deux cent mille waaw loolu moom du jar mu koy wax ay deux cent mille lim ko mën a wax rek benn mu ne ko ah dëgg-dëgg cinq cent mille laa ci fajoo ba mu wala boog mu ne ko ah déet sëñ bi man kay teguma la dara seetal loo ma mën a jàppale rek ma jàppale la faj bi moom dafa xaw compliqué loo ma mën a ci jàppale rek nga jàppale ma mais loolu moom moo gën nga koy wax loo xam ne nii amul moom mu jàpp ne sa faj yépp moo ko moo ko def te fekk ne demewul noonu te it mën na am boo ko waxoon cinq cent mille it dafa ko moom mu ñëw taxaw ne la ñaata la cinq cent mille yooyu nga wax mën na am sax moo koy gën a kontaan loo boo ko waxoon deux cent mille francs loolee kon daal la gën rek mooy nga wax ko li nga frais wala boog nga ne ko ah déedéet mbir yi daal seetal rek loo mu mën a jàppale rek jàppale ba man xeebu ma dara incha allah danaa mën a complet wallahu alam ñu ngi noonu wallahu alam naam ala kulli xaal kon mbokk incha allah ñu doy loo loolu yal na yàlla defal ñu afiya fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain